njiit nag nii la wara mel war na ñàkk ngàññ yem ci benn soxna am ay doom yu gëm yu amul baatu gannaaw ci yàqute mbaa déggadi ndaxte kuy sàmm mbooloo mi mooy jëwriñu yàlla kon warula am ngàññ walla dikku ku dëgër bopp mbaa ku tàng bopp warul dib màndikat walla xeexkat mbaa ku bëgge ci alal ju waaye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 te bañ a topp léebi diine neen yu yawut mbaa tegtali nit ñi dëddu dëgg gi ñi sell seen lépp a sell waaye ñi sell di te gëmadi seen dara sellul du seeni xalaat du seeni xel dañoo mbubboo xam-xamu yàlla waaye seeni jëf weddi na ko ñu sikk lañu te déggadi ba tële ci jëf lenn lu baax